yi tëbal nañ ko yéen kaay gi di alerte xëy duñu xibaar moom ak source benn incident boo xam ne démb am na ci tribunal grande instance bu Diourbel la yéen kaay gi nee na maître Abdoulaye Babou ak nag benn procureur boo xam ne ma ngi ci tribunal bu Diourbel la démb ñoo fa jàppante jàppante yu métte métti saaga yi di jolli diggante maître Abdoulaye Babou ak ki nga xam ne mooy procureur bi ndax dafa am ku ñu fa doon atte benn jàngalekatu alxuraan ci la procureur bi waxee mille yi nga xam ne moom nga war a joxe moom nga a ndàmpe loolee xanaa addiye la baatub addiye boobi nag moo lool ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Baba mu wax procureur bi na ko retiré ko procureur bi lànk kandaare am ñoo xam ne jóg daanu ay jël maître Babou daal di génn salle bi mbir mi nag na cobbay fofee sa jurbel kenn xamutul maanaam lan lay niro yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ci fichier électoral bi moom ak sud du quotidien ak waa société civile bi nga xam ne lu toll ci fanweer ak ñaari recommandation yi nga xam ne experts internationaux def nañu ko ginnaaw bi ñu càmbaree fichier bi société civile bi nag ñoom dañoo bëgg ñu daal di koy appliquer avant ñuy egg ci a kaay gi de l'observateur nee na société civile bi lu jëm ci dossier Karim Wade a Khalifa Sall ngir nag ñu mën a voté waat ngir ñu mën leen a voté loolee société civile bi daan na koy ngardaajoo ba ko lijjantil boppam yéen kaay gi di réew mi quotidien wax ci Boy Djiné mi nga xam ne moo ne mes na menteñ ba pare di njaay cekke ñi nga xam ne ñooy autorité yi loole nag tax na directeur bu campagne la na ñu koy dàq yéen kaay gi di la Soleil njiit réew di président Macky Sall nee na nag fi nga xam ne moom la ñuy def aéroport bu kawoon ña fa nekkoon impacté ya ñooñu ñëpp semaine bi nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu leen ndàmp danañu leen fay yéen kaay yi nga xam ne état bu Sénégal wax nag jëm ci wàllu médecin yi Macky Sall nee na médecin yi nga xam ne ñoom la ñu war a recruter bu leen recruter nag maanaam ci kaw gi lañu leen di yóbbu danañu fa toog gën ngaa gàtt lu toll si juróomi at yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy ci l'accident bu métti bi nga xam ne moo amoon fan yi ñu génn ba am ñett ñuy liggéeyee ci groupe de presse bii di leeral ñàkk seen bakkan journal bi nee na camion malien bi nga xam ne moom la ñu tuumal ne moo ko mbëkk chauffeur ba jamono ji ma ngi cab garde à vue yéene kaay di le quotidien wax ci lu jëm ci wàllum càccum fréquence ñi nga xam ne ñooy waa 2 fii ñoom nag dañoo tuumaal waa TFM na dañoo sàcc li nga xam ne mooy seenu fréquence loole nag moo tax Bouba Ndour ak ki nga xam ne mooy Birane Ndour convoqué nañ leen tey jii section de recherche journal bi neen lu jëm ci wàllum piratage fréquence moo ko waral yéen a kaay gi na enquête ñëw na ci zone des Niayes bi nga xamante ni mbayum noor maanaam doxoon na fa lool jamono ji nag ñu baree bari jamono ji bayatuñ ko ndax ay jafe-jafe yoo xam ne moom la ñu fay jànkoonte la yéen a kaay gi de la am na am na benn jigéen boo xam ne dañu ko rey ba pare dugal ko ci filaawo yi yéen kaay gi de libération xëy di ko dëggal yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na dafa am benn taximaan boo xam ne dañu ko teg loxo jàppe ko lu toll ci ñeent fukk ak ñeent ci ay kilo yi yàmba yéen kaay gi de l'observateur wax ci trafic drogue international am na ñetti sénégalais yoo xam ne teg nañu leen loxo ñu yoroon lu toll ci fukk ak juróomi tonne drogue ca diwaanu Espagne yéen kaay gi di 24 heures ak Dakar am na benn rapport boo xam ne génn na ci lu ci wàllum insécurité alimentaire ci Afrique de l'Ouest grande entreprise européenne yi moom la ñu joxar bi baaraamu tuuma yéen a kaay gi di Sud Quotidien diwaanu Ziguinchor opération bi nga xam ne nag ñoo koy def ci arrondissement bu ñas ya bi xëy di laaj nee na lan moo tax nag armée sénégalaise maanaam ciblé base yi nga xamante ni mooy base César Atoute Badiane te César Atoute Badiane mii moom bokk ñi nga xam ne d'accord nañ jàmm am yéen a kaay gi di Stades xëy di ñu xibaar naa ñu liste bi nga xam ne UEFA génn na ko ci joueurs nga a